taxawaay ci biir loolu itam ci la commune bi jële engagement bi ñu xoolee la ëpp ca la ko war a defal bu sax la état war a def mu toll ci juróomi téeméeri million ñoom génne nañ ko ba yaakaar naa xëy na seen pouriste def liggéey ba moo ca des waaye génne juróomi téeméeri million yoo xam ne yoo xam ne commune bi moo ko def loolee itam suñu Ousmane biñ ci waxtaanee am na ci loo xam ne joxewoon na ko digal loolee tam na ñëpp xam ne ci suñ ndigal la bàyyi ko te bu ma nee sama ndigal man awma kàddu kàddu sëñ bi la mooy bu yooru màggal gi xasee dugg buñ daggate fenn foo xam ne mën naa indi gàllankoor ci réseau bi loola suñu Ousmane wax na ko te dana ko gën a leeral ci yeneen i jataay ndax loolu tam bokk na ci li indi gàllankoor bi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci dëkk bi itam muy ñi liggéey ci tali yi ñi liggéey ci ndox mi ñi liggéey ci assainissement bi ñi ci des ñëpp itam bu ñu dikkatee nit ñi yëgoo ak ñoom di yëgoog sous préfet ak préfet bi nekk ci dëkk bi ndax bari loolu itam bokk na ci li indi gàllankoor bi ndax benn service état day jóge fa ñëw liggéey fii loo ay milliards la te préfet bi fi ne fi yëg ko man yëguma ko man sax bu ma ko yëgoon mën naa bañ am solo waaye ñoom ñu fi nekk état bi xamuñ ko coordination bi day manqué te loolu bokk na ci li indi gàllankoor ndax 30 bii ñu def ci dëkk bi biñ koy def. léeg nga dégg sax nit ñi ne liggéey bi daay yeex te ne la ko yeexal mooy trente bépp dafa romb ay tewo tewo yi nga xam ne forage yi ci biir dëkk bi la nekk di jox ndax mi ci ndox mi ci biir dëkk bi bala ñoo mën a dagg fenn nag faw ñu sakk réseau bi eh, wëlbatiwaat tewo yi jaarale ko feneen ba mu jaar ñu looloo yeexal ndox mi ak yenn barab yi nga xam ne dañ fa àgg mu doon barab yu bari ndox yoo xam ne amaguñ foofu fu ñu ko yóbbu ndax réseau bi dafa fees ndax ñeent yoo xam ne moo war a yóbbu ay ndox lay doon te benn lañ ci defaroon kon loolu itam boo ko yonee lu mu ëtt itam da nga la nga defaroon kon loolu itam nañ ci yëgoog ñoom luñ ciy defate ndax liggéey boo xam ne lenn la boo amul coordination liggéey ba na mu war a feeñ du feeñ loolu itam kon ñu ngi ci soññi ñëpp ñu gën koo xam ñu dugg nag ci waajtaayu màggal Tuubaa gi nga xam ne mooy li ñu fi dajale màggal gi moom lañ ko daa defee rek luñ ciy bàyyi xel rek mooy fi jamono toll loolu nag suñ borom moo ko indi mbas mi yàlla xam li tax mu wàcce ko waaye kon li nga xam ne na ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek foofa la ñuy jaaraat waxoon ne ñi seen xam màcc ci wàllu àdduna li leen seen xam-xam jox loolu lañ mën a wax nit ñi mu ne nag ndegam gëm nañ loolaay ci tax a mucc nag nañ ci ànd ñoom kon loolu ndigalu sëñ bi kon sëriñ bi ne ñuy fàttali. bokk jullit yi ak bokk taalibe yi lépp loo xam ne ñi yor wàllu kër docteur santaane nañ ko ci gëm ne mooy tax jàngoro ju du law ndax mu wóor na jàngoro nga di ko wàll nit loolu bàkkaar la kon laa darara wala diraara da ci dugg kon li nga xam ne docteur digle nañ ko ñoo xam nag détail ya tax yépp sëriñ bi nee na mi ngi ci soññe nit ñi góorgóorlu ci def ci jite fexe ba sàmmoonteeg loolu nga xam ne waa Kër Docteur ñu ngi koy santaane ndax fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun fàttali naa ko bu yàggul solution yi bu dafa am ko ko wax ci mag ñi ne ko man de Mbàkke ñun de am nañu jaaxle ndax dañoo gis ne seen waajakat dafa bañoon docteur lool te yéen ngeen fonk ko te xamul te xaw ñoo jaaxal mu ne ko sëñ bi ne ko. ah moom de daa def bu jàkkaarloo nit nit ne ko ne ko jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ndegam mënuñ loola nag ñu doy loo ko te yebal nañ ci docteur ndax Sëriñ Tuubaa nit ñëw na ci moom ànd jàngoro mu ne ko fakka chef naa maa bihi mu tàggoog moom bi peste ba ñëwee ci njaareem tubaab bi ànd ak sëñ bala Cooro ñëw di ko leeral sëñ bi fekk bañ ko njëkkee wax sëñ bi sëñ bi dana leen wéeri di de suñ borom a ko fendi waxtu ko jeexale mu jeex tubaab bi ñëw boo fekk na yëf yi àgg na foo xam ne jaaxal na ñépp moo ne ko dañoo bëgg ñu gën a leeral sëñ bi ndax xëy na jàpp na siñ bi dafa xamut fii fi àgg ndax sëñ bi moom booba li ko boroom digg rek la xam ba mu agsee di ko leeral pest bi ni muy rey ak jege ni muy faate sëñ bi ne leen qul inna al mawta lasi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum tubaab bi bi nga ko ko interprété mu ne ko damaa yaakaar ne xay ne dafa desee dégg li ma ko wax gën koo ko leeralaat mu leeralaat ko ko sëñ bi ne ko aynama takuunu yudrikumul mawtu wa law kuntum fii buruujin mushayyada mu ne kon nag kii moom moo ñun bokkuñ fuñ ne bis ak mu xëy xam le na suñu borom xamal ne ma ne moom mi fi wàcce woon jàngoro jeexal na ko kon ñu ne tam nañ xam ne ay mbindeef lañ rek yoo xam ne fu ko suñ borom yamal rek mu yem waaye nag kon lii ci war nga xam ne àddunaa ko andi sëñ bi neen mi ngi ciy soñ ñëpp ndax it nee na ñun dañoo jaayante ishtara min moom mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna jaayante gi ngeen jaayante gi ñu jaayanteeg sëñ Tuubaa nag sëñ bi nee na dëggal nga ñëpp dëggal nañ ko ndax yi fi weesu yëpp firndeel na ko màggal gi daaw bi ñu koy woote nit ñi xamuñ woon la leen cee fekk waaye ñëpp dañoo dem seen positif ak seen dogo mu jaral leen bu seen bakkan desee mu jaral leen ko màggal gi jàll ñëpp maase ci wane ne màggal gi bayu jënn jeexal ci wér di te mboolem luy wane ne wér di gi waroon na ko indi rek ñi ñaa ngi def donte ñu donte daan nañu ko kon loolu xam na ne yàlla moo dox suñ digg moom ci barke suñ Tuubaa bisub xasida bu mujj bii du Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane ne ne ñëpp jàng xasida na mu ko bëgg na ko digle loola itam gis ngeen ni ko ci yàlla sagale Sëñ Tuubaa ni mu ci wanewaate boppam booba kaay jege woon junni kaa par bis kon loolu li ñuy wax mantiqiyan xel mënu koo xalaat waaye boobu moom gis na lu ñu ñi gisut ba mu ko santaane fi mu toll nii yàlla na gën a jëm kanam waaye ay téeméer wala téeméer yu topp lañuy wax kon mi ngi wàcc kon ñun lu ñuy def rek dañ koy def ngir war koo def waaye lu ñu def rek yaakaar la yàlla lañ ci yaakaar ak doyloo Sëriñ Tuubaa kon na xam nañ ne li ñuy def lépp sagale ko siñ bi sagale ko ndigalu sëñ bi tax ñu ko def waaye bayit yooyu sëñ bi génne fan yi day wane ne adduru wa an an an adduru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani nañ xam ne yàlla képp moo mën a jariñ moo mën a lore wa in yamshushka llaahu bi durrin fala kaashifa lahu illaa huwa wa in yurka bi xayrin fala radda li fadlihi kon loolu dogu googu nit am nag sëriñ bi nee na na ko waaye nañ xam ne nee na kañ ko kañ ko séqal muy sëñ Tuubaa gis na ko ñëpp dañoo joxe woon seen bakkan joxe seen lépp bu ci seen dund yamee baax na waaye kon loolu mooy maa kaana allaahu li yadara al muminina ala ma antum alayhi xata yamisa al xabisa min al bi wa maa kaana allaahu li yudlihakum ala xaybi yàlla seetlu nañu ba xam ndax li ñuy wax dëgg la ci ñunam déet bam ñu doon seetlu itam xamoon nañ duñ ci faatu waaye suñu dogu ak suñu ngëm lañ demee kon àll si ne noonu bi la bi képp lañ demee waaye Sëriñ Tuubaa yi ci boppam kon nag ñi gën a am yaqin di gën a rafet njort di gën a am yaakaar di gën a doyloo Sëriñ Tuubaa ci ne nañ ci yàlla musale woon daaw ren ji noonu lañ ci musale bu suñ borom bindee ne suñu bakkan ca la war desit ndigalu Sëriñ tuwaay jaral nañu lu kopp te ñun ñëpp foofu lañu war a nekk te muy dëgg ci suñu xol ku ko wax nag te dëggu ci yow yàlla mën na la caa nattu ku ko wax ku ku du dëgg ci war bu ko engagé ndax suñu borom nanguwul loolu bu fekkee sa bakkan jëral la ko boo waaye bu la ko Sëñ Tuubaa jaralee nag dara du la ci fekk na taalibe yi daa def di doxe fii ba xumaag lu ne mënoon leen mënoon na leen caa fekk daana jël ay satlo yu tàng di ko naan dara leen du wàññi di dox ci kaw yu lool loolu xaal nag lam waxoon fa la saxaaba yi defaloo yonent bi dama jofaay ku ku ko defal la saxaaba yi defaloo yonent bi mu defalal la yonent bi defaloo saxaaba yi tolloo Cheikh Abdoulaye ko wax kon ñi ngi soññ ñëpp la jiitu ci programme bi nag mooy première safar bi li ci sëriñ bi daa santaane ca commission bi nga xam ne mu yor wàllu mbala mi te sëriñ Cheikh mu sëñ Abdou Latif jiite ko bis boobu ñu ngi ciy soññ ñëpp ndax bis la bis loo xam bisu jaayante la bisu xidma la itam di ko ànd ak sëriñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne moo jiite mboolem njëbatu maam Cheikh Ibrahima gépp ak mboolem Baye Fall ak waaye mboolem bi suñ tuwaay ndax bu suñ Cheikh Jëmb jiitoo rek bi yëpp tàbbi nañ ci biir kon ñoom itam ñu ngi leen di soññal ñëpp suñ Cheikh war na faa dem ci sëñ bi ci ndigalul sëriñ bi ngir soñ leen ca ndax keroo dem nañ fa ci liggéey ba waaye dafa xaw guddi. ngir fàttaliwaat leen ko waaye la sëñ Moustapha wax rek moo ci am nee na toogate ba siñ bi di ñu soññ ci mbale mi ak ñàkk jom la ci ñoom kon ñoom fekk na ñu jekk ba noppi waaye ñu ngi ci soññi taalib yëpp te ren lay gën a jafe kat ndax dañ dañ daa bay di buub waaye ren da ngay ŋàccum ndox ba noppi door a wëlbatiku war a setal kon loolu tam nañ xam ne leneen lu dikkaat ci jamono la ba ca dolli ko waatit mooy njàngum alxuraan bi nga xam ne ci premier safar bi lay tàmbule sëriñ bi santaane na ko ci li weesu waaye mi ngi joxe waa ndigal bu première safar tàmbalee penc yëpp fu ñu ko mën di def ba bisu màggal ga ñu di ko def di ko def addiyee rasulullahi di ko def addiyee Seexu Xadim na ko kilifa mu jëkkee daa santaane loolu sëriñ Mouhamadou Xaban Mbàkke Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëre ab taxawaayam ci ginnaaw boo xam ne magam magam ju baax ji sëriñ Mamour yoroon na ko te yoroon ko yoreen wu rafet woo xam ne adduna sépp ko seere bi mu fi bàyyi ko sëriñ bi joxaan ndigal sëriñ Moodu Xabaan mu tegawaat ci loxoom ñeneen ci gannaaw ñëpp ànd moom kon sëriñ bi jox na ko ci ndigal mooy itam mu ànd koog mboolem rabita bi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne ay sëñ daara lañ sëñ bi ngi ci soññ na ne eh, lépp lu ñu liggéey la sëriñ Tuubaa laa ci war a jiitu ñàggum sëriñ bi. mi ngi ci jox ndigal taalibe yëpp waaye rawatina nag sëriñ xam sutum sëriñ Sohaybu daa ngeen dégg ngeen kàddu yi mu ko seereel ci njàng mujj mii te yàgg na koo seereel sëriñ bi nee na mi ngi ko ci soññ mboolem ñu mu àndal ñëpp bu première saison bi tàmbalee rek fenn fu ci ne ndax dañ ko daa woote ci jumaa ji waaye ren dafa jege woote bu mujj bi moo tax mu ne comme defoon nañ ko te yàggut kon kenn ku ci ne man nga koy dundal ci daara ji nga nekk wala jàkk ja nga nekk wala pénc ba nga nekk ñu ànd ko moom ba ba ñetti fane safar yi ñu doo koo tàmbali ci jullikaay biir loolu itam sëriñ bi joxe ndigal daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitul sëñ Yuusu Jóob bu alfatih min safar ak rek moom it njàngum xasida mi fii ci buntu kër Cheikh ñu tàmbali ko bis bu yàlla sàkk ak kuréel di fa jàng ñu du ko def ba màggat gi loolu it muy lu yees loo xam ne sëriñ bi ren la ko santaane jox na leen ci ndigal te ñoom itam jekk nañ ndax ay soldaar rek lañ ba leen ko sëriñ bi waxee neen leen bu leen ko waxoon tey ñu tàmbali loolu lépp nag gàttandoo ko rek ak ñaan ngir daje ceeg tawfeex ngërëmu Sëriñ Tuubaa la leneen liñ daa def lépp itam soppiwuñ ko dara ñi nga waajal gan ñi niñ leen daa séentoo fas yéene leen dalal na ko suñ kilifa yu baaxee daa santaane conférence yi nga xam ne itam daa nañ ko waa commission communication daa nañ ko def ren jii fas nañ ci fas nañ koy ci penc yi sàmmonteeg nag fi jamono toll dañ def dañuy def am mu tànn ci njabootu Serigne Touba ak ñi njëkk a topp Serigne Touba ndax ñi àndoon ak Serigne kat ni moo koy faral di waxee ñoo mën a wane Serigne Touba ndax kenn ku ci ne ku xam fa ñu àggoon ci xam-xam fa ñu àggoon ci ragal yàlla fa ñu àggoon seen diggee seen borom ñoo ci ñoom lañ mën a jàngi dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa moo tax ñu wareen war leen di wane ba ñëpp gën leen a xam te am na si ñoo xam ne fañ àggoon kenn xamul luñ toll te nit ñi xamul leen ba nag ni ji nag sëriñ Mbàkke Kajoor ngeen xam ni mu demee ci sëriñ bi moom lañ tànn ci bokk yi tànn ci seex si sëñ Modou Gueye Jamoo yi ñaari ñoo ñu leen tànn ci seen i ñu def fa ay waxtaan ci ñoom ngir fàttali leen ba taalibe yi gën a jariñu ci ñoom ñoo xam ne kenz mi ñu am layen faru bu jàllee itam bokk na ci ndaje yi nga xam daanañ ko def ndax léeg dañ daa def colloque international at mu jot ndax loolee itam liñ ci jublu mooy Sëñ Tuubaa mooy wane boppam ndax màggal gi damay wax ne daanaka sax lu jar communication néewatu ci ndax moom ñëpp dañ ko xam ba noppi nit ñoo koy waajale seen bopp ñoo ko fàttaliku seen bopp xanaa lu ci ne yëgle lay doon rek waaye màggali kenn xaaru ci kenn kon